sant yàlla bu baax alhamdulilah alhamdulilah nan mbokk yi ñu ngi sant yàlla rek ñu ah wax dëgg yàlla ñu ngi jégalu toogaay bu bu bu yàgg bi waaw ndax ba xale yi ñoom bi dajaloo mm-hmm, ne wax dëgg yàlla si moom mm-hmm. fa mu ñu waxtaane guddi gi tey loolu suñu mbégte la ah, loolu suñu mbégte la ñoom suba ba léegi nag ñu ngi def ay berne ñu ngi teral nit ñi leen jox ay berne ngir bi guddi tey gi rek waaw comme tey wax dëgg yàlla ñoom waa bi ñoom wax dëgg yàlla ñoo dajaloo rek ne suñ seen moom faam nu wax tànnal ñu guddi gi loolu xam nga ne kon mbégte la ci ñun te guddi gi tey kan amuñu geneen gudd gu ko gën a mag ah amuñu geneen gudd gu ko gën a mag mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla ñi ngi sa baax rek di sa yàlla di leen sant ñoom ñi fi teew ñëpp waaw ku ci nekk dangaa bàyyi sa yitte nag ngir gis bi tey waaw lii moom wax dëgg yàlla xam naa ne sax bëriwul waaye ñoo ko barkeeloo ci bis bi rek xale yi ñoo ko barkeeloo ci guddi tey jërëjëf jërëjëf jërëjëf seen kontaan nañ torop teewaay bi rek dafa doyal waaye daanaka guddi gii moom dafa nekk guddi ga nga xam ne guddi ëpp ko solo ndax kilifa yu baax yi fi nekk yi nekk yépp Sénégal kenn ku nekk bind nga ci dara yàlla suñu borom moo si njëkk a wàcce yenn nag damaa amul seen fay ndax sama ñaari jarbaat yi nga xamante ni keroog ba suñ maam xaas ñu ñëwee ne damaa bëgg ñu bokk si daayira bi set guddi àjjuma ñu tàggu ma nijaay maa ngi dem daayira mbaa ñoo ngi ñëw sax waaw wax dëgg yàlla ñu ngi ñëw ñoo ngi di sant baax di sant soxna yi ndax heure bi guddi la ga nga xamante ni yàlla suñu borom moo ko njëkk a wàcce ne inna anzalnaahu fii laylatul qadr maa adraka maa laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahrin tanazzalu malaa'ikatu warruuhu fiihaa bismi rabbi kulli amri salaamun hiya hattaa matla'il fajri mu ne guddi gii de mu ne guddi gii de nan dal rek mu ne guddi gii de na si guddi ya nga xamante nii ah malaaka yi dañuy ànd ak nit ñi di saafanteeg ñoom ba fajar moo waral nit ñi di fanaanoo julli ñii di fanaanoo jàng alxuraan ñii di fanaanoo werdu ñii di fanaanoo jaamu yàlla yépp lu yàlla santaane daal guddi gi nit ñi di ko fanaanoo def ngir lan xamuñu ban heure la malaaka yi wàcc ban heure la yiiw yi yi di wàcc moo waral sëriñ bi si mbaaxam mu tegtal nu bés bii ñu ko koy def kon guddi gi guddi ëpp ko solo yéen ñëpp nag képp koo xamante ni fanaan nga si guddi gii suñ borom ne na bokk nga si aaya bi kon jarul toog ba minuit nga dem tëddi jarul toog ba 5 euh, heures ngay yeewu di ñëw jaru ko li si am solo daal mm-hmm. soo ndogoo ba pare mm-hmm. nga jàpp ba sel jël sa kurus wala nga jël sa xasida mm-hmm. wala nga jël sa alxuraan di si jaamu yàlla ndax jaamu yàlla rek la si yàlla santaane rawatina déet suñ jabaay suñ jabaay suñ jabaay suñ jabaay déet suñ jabaay mii nag dama leen bëgg a leeral tuuti si suñ jabaay déet déet déet suñ jabaay suñ jabaay déet suñ jabaay papa mbaay tànk yi jëm déet suñ jabaay papa mbaay sama baax dégg nga suñu jabaay jërëjëf jërëjëf am na solo ma baal ak am na solo ndax sëriñ bi da doon wax naan képp koo xam ne ñoo ngi tudd sama jëmm ji wala ñuy tudd jëmm Seydina Muhammad wala ñuy tudd jëmm yàlla suma borom ngay tuuri xéewal loolu da ay yiiw laa la koy defal si tuuri xéewal yooyu ngay tuur xéewal nag kon ay yiiw la si yow si jabaay mii nag day sama xarit dëgg fonk ma lool ñu bokk lépp ñu bokk sëriñ muy sëriñ seex assis laat baara di suñ sëriñ ñun ñaar ñëpp keroog maa ngi woo dige seex Tidiane pour mu ñëw jël si laylatul xadr bi xam naa jël na sa jumaay ja jël na berne yi defe naa si njabaay ñëwoon na ñëwoon naa wax dëgg yàlla waaw seex jambaar yàlla kon indi na fi xéewal yu bari ñoom suñ seex ak daayira suñ seex bi itam ñëwoon nañ fi. waaw waaw daayira waaw daayira suñ seex ba guddi gi daal lépp loo xamante ni nii. Mm-hmm. ñaan nañ ko fi. Mm-hmm. yàlla nu ko Serigne Touba boole. yàlla nu yàlla boole. Mm-hmm. si tanazzalu malaa'ikatu ruufiha bismi rabbihim kulli amrin salaamun hiya hattaa matla'il fajr yàlla nu si yàlla boole. kontaan nañ bu baax baax a baax. di ñëw bii ngeen ñëw nag. mbaa xewlu ngeen ngeen bu baax moom kay fi ne sëñ bi. Mm. sant yàlla Mm. di la ñaan it seen nga yàgg fi ndax yow maa yow danoo yàgg mm. ay wëla la mm. li ci def kay mooy xanaa nga ñaanal rek ñu ñu yewi mbooloo mi waaw jërë ngeen jëf kon <laughs> soxla yu yéen itam ay jàmbaar ngeen tam ah, gis nañ ni ngeen taxawoo si juma ji gis nañ ni ngeen taxawoo si daayira yi gis nañ lépp ñoom ñooy jàmbaar lañ de ndax wax dëgg yàlla aar bu ñu xëyee ji nañ fay dem di bale ña ngay bale koñ ba ñoom waaye daayira bi wax dëgg yàlla ay jàmbaar la fu ne tak tak bu am ñoo xam ne war nañ caa lijjanti fii ci njaareem rek ña ngi koy def surtout soxna Fatou mii wax dëgg yàlla nga xam ne moo ji moo jiite jigéen ñi kon lii nag ak sant yàlla la sëñ bi sant la bu baax kay ah, maam xaas mii nga xam ne moo nekk président dante di astafurlah président bi moom it dox dëgg yàlla moom it ku ku ku jàmbaar la lool jàmbaar la lool jaar jëwal bu ko defee nag nga defal mu ñaan rek. waaw ñun ñu yeeyu jataay bi. waaw jërëjëf bisimilah. jataay bi fu waay toll neel wax amin fu waay toll neel amin nangu leen ñaan. ngeen bañ a bokk si ñiy naan situation koor rek. loolu moom wax dëgg yàlla jërëjëf